man oh, li ma gën a marqué ci El Hadj Diouf. Mm-hmm. sunu match ba final ba contre Cameroun. Ah, eh, eh, eh, ba daa jeex dama rus. mi joueurs yi rus ma de. Mm. maa daf njombe. yow man waaju maa daf njombe ba. déedéet kay. kër gi ma toogoon di seetaan télé ba mu jumaa kër gi ma toogoon seetaan télé ba ci Cameroun. Mm-hmm. kër ñoom fii yaa ngi woon Cameroun maa kër fi fi Fanta. kër ñoom Fanta laa ne woon ci Cameroun. sama sama ay doom bàjjan la ay Cameroun ne la. match bi daw match am naa bàjjen ko mu rune de eh. xeet bu ne am naa ci bàjjen waaw moom des dëmm xeet bu ne am naa ci bàjjen léegi dëmm du xeet bi xeet waaw bi match bi daw mën nga am nag xeetu dëmm kon mën naa ne waaye bi match bii daw damay jékki-jékki dégg ñu ne attention Henri Camara kii doon Fadiga Fadiga kii doon Diouf Diouf attention au poteau corner man ci laa mere nag na poteau corner fekk génn wuñ ko Ilaas Diouf du dugal jour la ko jàppoon problème chaque jour mané porte cornée bu génn El jour dugal boy ba tok di ma rek ñu attention El jour la ballon de El porte cornée attention la porte cornée oh. ci la jox saaga nak ndax entraîneur bi yàq ma suñu match porte cornée dina génn ñu dugal Moussa Ndiaye. ya nga porte cornée jour la. ma defoon na jour la ma defoon na at ñeneen la ñoo may ñoo marqué. nga boy na porte cornée moy affaire bobu ñi samp de porte bobu di ci teg bal bi di dóor. yoo xamoo ko woon. xamoo ko woon. <laughs> jour laa ko tegoon. pour jour bu bees la ndax Sénégal dañoo bari ay feem. dañoo bari feem di waaye nag yow tamit. a dégg pro corner nag El Hadj pro mais bu nawet bu nawet bu ñu nee hmm. damay def dañ koy paase dañoo poto da koy paase El Hadj Diouf. waaw waaw waaw pro ma rey.